ma ñëw ci siddiqul akbar sang bi ne mi ngi ñëw ci siddiqul akbar bu ñu waxee wàllu maqaama nee na bu ñu waxee wàllu maqaama kay secrétaire général bi kay secrétaire général bi mooy Seyyidina Muhammad mooy Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye secrétaire général bi waaye général bi. am mission am. réalité am réalité am. mooy Ahmad. Ahmad man. Ahmad man. Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad. at Tijani Chérif. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani. Mawlaay Ahmad Tijani. boo déggee ma ne Ahmad. boo déggee Muhammad. nee na léeg-léeg dégg ku naan. déet bàyyam ci shahada déet bàyyam ci shahada Mahamad lañ ko daan wax nee na mu leen wax ku leen wax waxu bàyyu shahada nee na moom mu wax leen doomu yonent bi xàqan ne leen Ahmad ibnu Muhammad Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tax di wax de. yonent bi ma doy. nee na yonent bi moo ko doy. ci Cheikh Tidiane Chérif. ndax yonent bi ndax yonent bi moom mi yar Mawlaana Cheikh Ahmed Tidiane moom mi Cheikh Ahmed Tidiane di doon di doomam moo xam doomam moo ko booleeg moom nan la ko booleeg moom dama réer. nee na dafa réer. réer boo xam ne réer boo xamante ne. nan lañ koy junjee. mooy leeru yonent bi. muur na ma muur na ko. réeral ko nan la ko réeralee. nee na day dal ci awal. tur tur na dal ci aaxir. tur na dal ci zaahir. tur na dal ci baatin. mu téye loxoom. ne ko yi ngay dal yëpp baax na. waaye dalal ci waa ji. sang baa ngi nii. Cheikh Tidiane tarbiye ko. moo tax mu ne ku mu neex gëm ku la neex. nee na moo tax mu ne ku mu neex gëmal ku la neex. man nee na moom de xay bu dañ ko tere. wax ko mu gëm. waaye ma waxu sax mu gëm waaye mu xalaat sax. gëm ku dul Cheikh gëm ku moom kese. nee moom kese. moom dong moom képp moo ko doy sëkk ci fànn yëpp nag. maqaama boobu. sang bu tedd bi nee maqaama boobu. moo def Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. moo def Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. waxuma jaar jaaru shahada bi. waxul jaar jaaru shahada bi rek. waxuma jaar jaaru deret. waxul jaar jaaru deret bi rek. waaye jaar jaaru nuuru yonent bi la wax. muy siddiqul akbar. su ma ko doon toj. nee su ko doon toj. di ko xar di ko xar. damay indil alxalifa. day indil alxalifa. ñeenti yoo xam ni. bu ci nekk. su taxawee yowmal xiyaam mun na ko prouver. tax muy siddiqul akbar nee na lu tax muy siddiqul akbar la ball ci yonent bi la ball ci yonent bi xam-xamu xaqiqa boobu fu yu daat ya benn bu ca nekk ca dënn Mawlaana Cheikh Ahmed Tijaani la dal lay jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa la war a dem ci wëli yi Mawlaana Cheikh Ahmed Tijaani moo koy jël ba noppi arrosé leen moo tax bu génnee wëli yu yëpp taxaw tem taxaw tekk kenn du ci yëngu jàkkaarloog jëmmam di ci tarbiya di ci yéemu di ci ñaan mooy siddiqul akbar nee na boobu benn la de nee na beneen ba mooy gouvernement ba ca kaw xadaratul ilahiya wala yu yëppay daje ku ci nekk ñëw toog sa fauteuil Mawlaay ama Ahmad Tijaani buy ñëw dañ koy annoncé lu mel ni haut lu mel ni haut-parleur nii boo xam ne lumière la moom la ñuy jël wax ni roox bu doon yëngu dalal ndax am na leer boo xam ni mi ngi dugg ci ci saal bi roox bu mu romb nga yëngu xaalam dana ko yóbbu ñépp dal ñu toog ba yàgg buntu ba tijjeeku wali yu buy dugg lool lu jar a leeral la wala yu buy dugg benn porte la ñuy benn porte la ñuy tijj xadaratul ilaahiya buntu ba mi ngi mel ni ñaari porte yu dajale tëjandoo ko wala yu buy dugg benn rek la ñuy xëcc nga dugg malaayika bi yor xeeju leer gi tëjaat ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane nag buy dugg si ñaar yépp la ñuy xëccandoo ñaari malaaka koy xëccandoo mu dugg seeg manto bi waaye bu dugg see boo xoolee malaayika yu téye buntu xadar ilaahiya da ngay gis ni dañuy frissonné nga yëg ni attan nu ñu doole manto bi bay attan nag bay attan nag doole jëmm ji muy siddiqul akbar nee na mu dugg seeg sikkimam dugg seeg leeram nee na boo njooloon bay mesurer deux mètres wala trois mètres ñu ne yaa fa gën njool bu Cheikh Tidiane dugg see dafay tiim sa digg bopp nee na foo toll janoog kanamam gu leer gi janoog jëmmam bu duggee ñëpp ni teg nee na bu duggee ñëpp ne teg waaye cey bu jógee it ñëpp gënati ne tek bu jékkee saa moom Cheikh Tidiane Chérif tànkam yu leer yi mu jóg ca fauteuil ba daal di koy teg ca tàppi saal ba taxaw rek nga xam ne beneen ngan da ngi nii ban ngand ban ngand mooy ngand mi nga xam ne buy dox mooy ngand mi xam ne buy dox balaay agsi balaay agsi leeram gu weex moo koy leeram gu weex a koy jiitu nga ne déet rek séen ne déet rek seen ka nga xam ni seen ka nga xam ni yàlla wax na leen ko ba tàyyi moo leen di jëriñ waaye xamuñu ko muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga njool moom sang bi nee na ma nga njool moom ànd ak maqaamaam kanam nga mel ni seetu sikkim bay melax ba ñuy di génne ay lumière muy dox di dox ba ci Seexu Tijaani mu akolaat ko nee na lu dàq loolu amul nee na walu yu nekkoon ca saal ba ca jamono jooju ñoom ñëpp suur nañu ci leer ci loolu kese ca discours commencé gul moo tax mooy siddiqul akbar